Tiger Brother Sénégal compagnie Sky cosmétique di jaay ay parfum yu baax ay original parfum Sosim société de construction immobilière africaine Bococo Maquette l'expert en paiement multiple Aquaterra ndox mi wóor te leer l'écran bu tàngee neex bu seddee neex KPay transfert d'argent bi gën a wóor ak kaay ma ñoo leen di may li ci yéene kaay bisimila nit mën naa dëkk di wax lu mu manul waaye nga def loo mënul c'est impossible impossibilité n'est pas sénégalais budget Sénégal yokku na dem na ba ci soixante-quatre mille milliards junni ñaari junni ñetti junni ñeenti junni juróomi junni juróom benn junni juróom ñaari junni milliards yu manqué tuuti mooy budget Sénégal Vox Populi ne hydrocarbures yi ñoom ñoo tax ñu boste lii di budget Sénégal ci 2023 waaye 2023 bii ku yabu na daka sax xam ni réew mi jàpp leen ni laas quotidien nee na Macky Sall année social la koy def lépp loo xam ne naqadi woon na askan wi laas quotidien nee na ci atum 2023 bi Macky Sall nar na ko effacé ba mu jeex tàq fo ne Macky Sall is la bar plus haut li tax mu wax loolu mooy budget Sénégal bi dem na ci 64 mille milliards waaye loolu lépp dañu ko jàpp année sociale l'info le journal daaneel rek le quotidien yéen a kaay jàpp daal ne les munitions du combat hausse du budget de 2023 yokku nañu budget bi croissance bi it ka saalika naka noonu xaalis bi yëpp nañ ko jëmale ci askan wi ndax Macky Sall nee na nañu bàyyi golo du béy baabun di ko dundee Sud di ne Macky mi ngi peaufiner plan am ngir année scolaire bi nekk année boo kam xamante ne ni année bu mucc ayib la pas de grève pas de clic pas de claque na enseignant yëpp dem ci école yi jàngal xale yi ndax ñu mën a bari xam-xam Walfadjri quotidien ne école sénégalaise dans tous ses états ndax bu nekkee ni sax nguur gi jël nañu ay matukaay ngir jàngalekat yi bañ a nekk ci jafe-jafe waaye Walfadjri quotidien nee na école yëpp nekk ci jafe-jafe yii école danoo taa ya ca des ay abri provisoire la loolu lépp bu ko nguur gi naree jël ngir élèves yi mën a jàng dana jafe lool le temo yéene kaay ne jafe-jafe yi moom li ko gën a indi mooy école yëpp inonde enseignants yi doyuñu réew mi ko quotidien ne li doyul askan wi kañ mooy mooy fay impôt fay impôt ci réewu Sénégal Sénégal amuñu sax boobu la culture la soleil suñu jant réew ne Macky dafa bëgg ñu respecter nag quantum horaire bi li tax mu wax loolu mooy jàngalekat yi nga xam ne dañuy nekk ci privé bi mbaa ñuy jàngale ci biir kër yi mbaa ñuy defa nekk naka su noonu la soleil suñu jantu réew nee na Macky Sall nee na na dakk bés bi le journal ne ordonnance ak mode d'emploi la Macky Sall nar a ak waa assemblée nationale ndax ñëpp xam nañu ni bu Macky utilisé article 77 dina metti lool ci ñi nga xam ne ñoom ñooy député yi le vrai journal ne ñii dañoo mu puso bi mu réer muy Aminata Mbengue Ndiaye ak ki nga xamante ne moom mooy jëwriñ ji xëccoo tey parti socialiste li fi Senghor bàyyi Abdou Diouf bàyyi ko Ousmane Tanor Dieng dem si yàlla si Serigne Mbaye Thiam ak Aminata Mbengue Ndiaye ñi ngi koy bëgg a yàq 24 heures chrono ne li nar a yàq réew mi kañ mooy wàllu wér yaram bi nga xam ne dañ ko nar a nasaxal mu ne commission bi nga xam ni ñoom ñoo jóg taxaw temm ngir ak la vie chère ana gouvernement bi libération yéene kaay daal dikk ak ñun ci GP yi nga xam ne ñooy jógee diggante Sénégal di dem Maroc drogue dong la ñuy indi ci réew mi moo tax tey libération yéene kaay nee na El Señor le bureau des GP cerné direct news dikk ak ñun ci berte bi nga xam ni moo nara a boste lii de économie réew mi lii ko di ñu dikk daal ne réew mi déglu leen milliards yu bari yi nga xam ni moom mooy budget Sénégal léegi day dellu ci sénégalais yi la tribune yéen kaay ne directeur yéeg directeur de cabinet yéeg conseillers yi ñi ngi xëccoo gato bi nga xam ni Macky Sall nga koy séddale alerte quotidien ne Macky Sall nee na askan wi dal leen rek seen jafe-jafe yëpp lay regle critique yéen kaay ne ñii di jàngalekat yi bu yeboo ñu xam ni président de tous les sénégalais le président Macky Sall mi ngi leen di xool il les a à l'œil source année parti démocratique sénégalais mi nga xam ne dafa doon carte dafa mel ni perte na ndax dafa doon carte ak Idrissa Seck di carte ak waa Yewwi di carte ak Sall jeu d'échec la ku bëgg lépp mbaa bëgg xaritoog ñëpp le source année da ngay daanu l'observateur yéen a kaay daanu tey ci tali yi nga xam ne ñi ngi rey nit ñi guddi ak bëccëg suba ngoon mu tuddee ko sur les routes de l'enfer les eco yéen a kaay dikk ak ñun ci démarche Serigne Mbaye Thiam mi nga xam ni waa parti socialiste ñaawlu nañu ko enquête quotidien dinaa ci ñëw léegi stade yéen a kaay ak ñun ci Real ak City mi nga xam ne ngi ci plein régime Sadio Maajo astafirullah saajo Mané it ma ngay toj Bayern suñu làmb ne Bécaye mbay la ñu laaj ngir mu tojol leen ki nga xam ni moom mooy combat Siteu ak Papa Sow Bécaye Mbaye daal leen le ci biir suñu làmb Siteu moo am avantage ci biir combat bi le 6 novembre dina metti lool mbokk yi déglu leen li metti ci biir enquête quotidien ku ci bàyyiwul tiktok di ci saaga di ci def naka ci dul noonu enquête quotidien nee na sale temps pour les tiktokers am na ay tiktokers yoo xam ni dañoo démarché woon ngir gis ki nga xam ni moom mooy Wally Ballago sek le chanteur du peuple yombul ci ñoom xam nga lu ñu def ubbi seen tiktok rek di saaga ki nga xam ni moom mooy Wally Seck ak jaaga yaayam waaye nag jàpp leen ni ñooñu ñëpp tey caabi féete ne leen ginnaaw l'observateur yéene kaay dikk ak ñun ne kenn ku ci nekk war ngaa xool sa ginnaaw naka ngay def ak naka nga koy defee jàpp leen lu neex tey mun naa naq di ëllëg kii di l'observateur yéene kaay dikk ak ñun ci ndaw si amul woon jëkkër di génne copain jàpp téléphone am rek lum lu mu ci ay awraam envoyé ko farwa lu mu filmé ci ay awraam envoyé ko farwa àdduna di dox di dox ba soxna si dem sëyi feneen mu naq di lool farwa xam nga farwi lu mu def jël foto ya kon soxna si doon envoyé yëpp taati neen laa wax taati neen ne ko ci internet bi ne ko fang ci internet bi moo tax nit ñi nañuy seddu ëllëg te xam ne bu neexee tey mun naa naqadi ëllëg aadame demain incha allahu rabbi mon cœur est saturé de plaisir quand je bois l'eau pure et si légère Aquaterra sponsor officiel de votre santé Aquaterra moom lay naan fii lañu ko defaree ci réew mi ay doomu réew mi ñoo koy liggéey ndox daal du romb Aquaterra sell na neex na baax na yiw na dal na te it daf may dalal Aquaterra ndox mu sell Sénégal lu doy waar laa leen di wax am déeg jànk ndaw comme ni nga ko waxee rek affaire bu doy doy waar fii mooy Chine ci biir Sénégal lan mooy Chine ci biir Sénégal dañoo jël Chine indi Sénégal wala lan la noonu mun nañ wax loolu ba tey de man su ma soxlaa dara nekk Chine nekk Sénégal noo ma koy defal te la koy commandé si njël bu yomb

plomberie sanitaire. da ngay def carrelage. ah oui mobilier ak lumière. menuiserie bois alu ak métallique. lépp lu may soxla si wàllum kër. même sax lal la leen mucc ayib rafet baax. lépp looy soxla ci biir kër. lépp lu muy lekk lépp lu naan tay nga Sénégal compagnie di daw. adresse bi. bi fu yomb la mooy croisement Dendé ba néew bi foo wootee ñu gëstu la. Rose ak fan.

ak kaay jaay ma ñoo leen doon may li ci yéene kaay